waaw tey euh, xalif bi dalal nañu dañoo ñëwoon pour dèjà wax ak moom explique ko situation wu épidémie bi fii si Touba xam ngeen euh, Touba dëkk bu mag la dëkk bu am kilifa la dëkk boo xamante ne lépp lu fi am rek do bàyyi kilifa gi mu yëge ko si rajo da nga war a donc jël sa tànk ñëw explique ko yépp si détail maanaam détail yoo xamante ne ñun rek ñoo ko mën a expliquer. moo tax ñu ñëw seet waxtaan nañu ak moom ministre de l'intérieur la àndaloon mais mu comprendre ñu bu baax a baax euh, xam effectivement situation bi mais aussi ñu euh, wax ne suñu cër mooy que ñu talal ko loxo mu ñaanal ñu mais non seulement ñu talal ko loxo mu ñaanal ñu mais ñu fexe ba jël taataan ay conseil am parce que moom moo ñu gën a xam dëkk bi ba lépp lu ñuy def rek si wàllu santé si wàllu prévention si wàllu information ñu mën a sukkandiku aussi ci conseil yooyu bon nag en résumé dañoo ñëw pour rendre compte situation épidémiologique bi ki xamante ne moom moom dëkk bi mais aussi taataan ñaan ak ay conseils pour xool naka la ñuy pour euh, donc fexe ba euh, vraiment épidémie bi ñu mën ko stoppé fii ci Touba. xam nga euh, loolu moom wax naa leen sànq def nañ ak moom vraiment un tour d'horizon pour expliquer nu mu demee.

li gëna am solo moy ñu gorgorlu ci prévention bi li gëna am solo moy ñu gorgorlu pour képp koo xamantene am na njort rek ñu man la war la mën a mettre en quarantaine nga bañ a génn fa nga nekk pour nga bañ a wàll keneen ba képp ku ñu selul ba ne am na ñu mën la jël yóbbu la traité la fexe ba vraiment donc population yi comprendre que ne am na acte yoo xamante ne dañ ko war a donc bàyyi mooy nuyoo bu bëri bi safantoo bu bëri bi et cetera parce que dañoo nekk si période de ku nekk rek da nga war a sa bopp aar sa morom aar sa njaboot loolu moo ëpp solo. wa xam nga euh, lolou mom yaakaar naa ne euh, mbiru mbiru mbiru société la ak euh, mbiru population la très souvent bu mbir amé da ngay wax ne ça n'arrive qu'aux autres da nga naan ñeneen ñi rek la mën dal yow mom concerné la bës bu la dalé da ngay xam ne mbir mi amna réellement bon nak limay wax askan bi rek moy que ne donc feebar bu fi nek la am bu baaxa baax. actuellement am na fukki nit ak ñeent yoo xamante ne juróom-ñeent pardon yoo xam ñu ngi leen di traité pour que donc ñu wér am na si koo xamante ne seet nañ ko presque wér na fekk suba nañ def dernier contrôle ñu génne ko mais feebar bu fi nekk la boo xamante ne vraiment donc dañ si war a taxaw waruñ ko caaxaane li gën a doog doy waar si feebar bi mooy wallaate bi dafa gaaw parce que bu ngeen seetloo depuis que donc euh, suñu mbokk boobu jógee Italie yegg si fii ba léegi. ay fan la ñetti fan la mat mais bu ngeen seetloo wàll na déjà fukki nit ak juróom benn ak moom muy fukki nit ak juróom ñaar loolu mooy wane ne bu ko ñu bëri amee mais bon wàllaate bi dana donc law dëkk bi boo xamante ne law bu métti lay doon moo tax donc nit ñi war leen wax la ne vraiment lu am la lu ñu war a taxaw la lu ñu war a lëkkaloo lu ñu war a booloo la pour donc euh, jéem ko xeex